seetaan ci wasaare làmb mbokk yi nuyu nañ leen am kontaante ak mbégte comme niñ leen koy defalee saasu su ne wolof na def ne lu def di waxul lu ay di njàmbat fan yii nag dañu koy wër ñu bari soxla ko mu nekk ci ruqob moom liiru jaan monument wu géejawaay bi tey ñu am ci parkin bu ñu ko fekk fas yéene waxtaan ak moom lu baree baree bari fan yi gis ngeen làmb yu baree bare bari mu ngi xew waaye liiru jaan moom saa yu génnee dëkk bi yëg ni li mati jaab doga doon wax borom dënd yi dikk na ñu yëg ne borom dëndee dikk. kan moom dëndee. yow déedéet nu ma moomee dëndee. boo waxee xam ne déet waaye waaye bul ne borom dënd yi dikk ndax soo soo borom dënd yi dikk na dafay mel ni man maa moom dënd yi wala man maa moom dëkk bi te man moom ma dëkk bi ah xanaa yow yow mi xëy di wër suba ma ngoon non non yow mi xëy suba di wër suba ma ngoon yow yaay borom dëkk bi waaye man moom ma dëkk bi man ku ñëwul fii doom a ma gis sama gox fi ma dëkk ku fa ñëwul doo ma gis kon nag bul ne borom dandi yow mi yaa moom dandi man moom mën dandi voilà maa lay nuyu jili di nuyu sa caméraman bi di nuyu yaa ngi ma fekk fii Géejawaay sama chef muy notaire sama fief xawma sama chef laa wax sa yoon ci sama chef sama chef mooy fi ma dëkk waaw sama chef sa yoon nekku ci loolu képpel sa affaire sama chef laa la wax ok nga fekk ma ci parking bi sama gars yi nga xam ne tubaarikàlla macha allah lu nu oto bu nu jaayul baaxul oto bu nu laavewul baaxul. Ah, ñuy jaay oto ci réew mi bari na. Ah, oto bu baax. Ah. ñuy raxas oto yu baax. ci réew mi fii sama gox la. sama gox déggoo li ma dama ne la oto bu nu jaayul baaxul. oto bu nu laavewul baaxul Omar Diallo moo nekk ci wàllu laave yi di jaay oto yu baax Omar jàlloo xale bu am jom am ful la am fay nangoo liggéey at kan euh, booy bi nga xam ne moom tubaarikàlla macha allah <laughs> muy Balla sama waa ji ndaanaan bu mag bi nga xam ne tubaarikàlla macha liggéey rek la ñu xam at laay euh, at ñoom ma mbay at euh, ngóor soos nga xam ne tubaarikàlla macha allah mooy loolu fii daal booy yu am jom at ma mbay ñoom ñëpp ah tout ma leen ziar bu wér nga fekk ma fii soo ma fekkee damay kontaan ndax fii sama gox la daal mm. sama koñ la waaye tubaarkàlla macha allah sama koñ nga ma fekk tey nag sama koñ nga ma fekk du nuyu waa Géejawaay gépp bàyyi ma kenn du nuyu Modou Dieye seen ma xarit sama patron comprendre du nuyu Aliou Sall Sall ngaari sama waa waa Dieye mi ngi fi mi ngi fi mi ngi mi ngi fi mi ngi fi mi ngi fi ah waaw kon da nga koy seeti après comme que am na loolu waxante woon da nga koy seeti comprendre nga waaw du nuyu ñoom Fouta ñoom di Ba ah ñoom Andaw Ndiaye ñoom Pape Mama Fall ñëpp képp ku nekk géejawaay rek ah maa ngi lay nuyu di la ziar di gërëm ñëpp di sant ñëpp ndax ñun géejawaay lañu am fi la ñu tëdd nuyu grand champion Balla Gaye 2 ah, di jëm ci bis bu mag ñu koy waajal tamit tubaarikàlla la set août di ñaan yàlla yàlla may ñu ci ndam lu sedd guy. dinañ ci ñëw waaw voilà dinañ ci ñëw dinañ ñoom Lac de ñoom Guy gi ah ñoom Sakess xale yëpp ah waaw ñoom Marley ñoom Jackson ñoom Pape Thiam ah xale yëpp ah at fils de di lañ ñaanal ñëpp yàlla defal solo Lirou Diane. buñ ko waxee ne monument wu géejawaay. waaw te actuellement nii gis nañ ni parcelle barki démb seen 100 pour cent dañoo nekkoon ci bis bu rëy. dugg nañ ci am ci ndam. ñu gis Pikine def 200 pour cent. waaw Ama Baldé génn. boo ñaa génn soq génn pikin gépp ama seen seen mag ñëw gën leen a doole ci deux cent pour cent mais géejawaay moom daa mel ne amuñu sax cinquante pour cent waxoo dëgg ñoo ngi ci quatre cent pour cent ci pour cent parcelle suñu gisee suñu booloo su ñun la ko gisee Pikine suñu booloo su ñun la ko gisee rafet la lu baax la lu baax kay ñëpp a koy roy loolu su ñun la fekk baax ñun ñoo ko fi njëkkee bi ñuy dajee fii kër Pape Mama Fall ah ñun ñëpp ñu bool non non déglu ma rek waaye su ñun la ko gisee lu baax koo gis da koy roy lu bon lan dul roy waaye lu baax ñëpp koy roy seen cent pour cent yooyu yàlla nañ ci yàlla jàppale yàlla na continuer jàmm voilà. mais moom nga bëgg. wa lan dina am te am na. déet amagul Bamba dina. dégg naa ma naa man nit ko nit koo xamante ne du waxantu. mu dem fu mu xam ni bu fa demee ñaan yàlla rek yàlla nangu ma ngi fay dem weddiwu ma ko de loolu dëgg la fu ne wuti nga maa ngi fu ne maa ngi fay ñaan ndax ñu bekk nekk benn te lool dina am incha allah ñoom ñëpp man seen mag laa te jox nañ ma cër jox nañ ma li ma yee lool ta lool moo am solo ci àdduna te loolu ñoo ngi koy def Balla Gaye sama rakk la Lac de sama rakk la guy gi sama rakk la Marley sama rakk la Jackson sama rakk la Pape Thiam sama rakk la ñoo amal seen junior ñoo Aliou Seyda xale yëpp tubaarikàlla macha allah samay rakkal sama frère ba ci seen rakk rakkaat yi ñoom ñëpp ma jox sama cër jox ma li ma yellool. kon nu muy ñëwaatee 100 pour cent. 400 pour cent pour cent. non léegi 400 pour cent moom mënoo ko ñëw mooy ñëpp ñëw. waxoo dëgg dina am incha allah rabbi te maa ngi woo magu géejawaay yëpp. ñu ñaanal ñu defal ñu jàmm su suñu bëree daan lu nu yootu jot ci te loolu day am incha allah rabbi. 100 pour cent bi xanaa open press Balla Gaye ngeen koy commencé. dina am incha allah. guy gi ñëw. waaye yow lan mooy guy gi ñëw lu tax ba du guy gi du ñëw nga am guy gi ñëw. ñëw nga am ay guy gi ñëw booloo mooy doole ñun booloo la du xam. di ngeen dajaloo. waaye yow lan moo ñuy teew di seen genre yi moo tax suñu dul dajaloo seen genre moo tax te ñun dañuy dajaloo mënoo ci tus sa room mën ci tus. man kay loolu laa voilà non non yéene woonu ko ndax sooy taxaw naa est-ce que da ngeen dajaloo loolu mooy yéene woonu ko te loolu dina am incha allah rabbi di ngeen gisaat géej way bu tàq tàq incha allah rabbi ngeen ñaari bis nag ndax ku ne ëpp na ñaari bis ba ñetti bis yàlla na yàlla defal jàmm mais am ngeen ñaari bis yoo xam ne da nga war a laale ku mooy Gris Bordeaux ak Balla Gaye incha allah rabbi yàlla na ci yàlla yóbboo jàmm ba le 7 ñu duma ko daan ko Gris Bordeaux waaw ñu waay ñu duma ko daan ko gaynde nga wax gaynde géeje way Balla Gaye mën naa duma Gris Bordeaux bee paase duma ko woon Gris Bordeaux demul woon ardo ba passé. dem ah kan moo dem ba këram naan nii. naan kii ban télé la ban site la ah dama lay waaw kon nag jeex na. di leen ko duma daan ko incha allah rabi la sept août sooba yàlla. Gris Bordeaux nee li leen daloon bi passé bi yoon day fatt buntu yëpp. ban buntu lay fatt lenn mun. bala ko mun ko mun ko fatt buntu yi. j'ai paré tous les côtés. j'ai paré tous les côtés. mais bul fàtte Bombardier mi la daan deux fois Gris moo. d' accord loolu du dara boobu euh, Gris Bordeaux su daanee Bombardier lool du dara kan moo fi toog 15 ans daanuwul. déet déet dama lay kon moo fi toog 15 ans waxal. Yékini ah, ah, kan moo ko daan. kon kay jeexal na wax ku daan Bombardier. Eh, ah, ku daan euh, Gris Bordeaux. Yékini eh, ah jeexal na loolu du question may booy seetal affaire benn question. ah oui. ku daan Gris Bordeaux deux fois Modou Lo daan ko deux fois. Balla Gaye daanu Modou Lo deux fois. kon nag loolu question. Hmm. waaye. kon Gris Bordeaux da ngaa gis ne bu arbitre ne prime nga. oh may la man daal bu mu fa nekk di lim limal de benn benn la. kan mooy lim limal Balla la wala. Gris Bordeaux la su li muy wax su fekkee dëgg dafa bëgg koos bi na ñëw koos si ko su ñëwee koos fekk ci daan Sadji gi Balla Gaye de Serigne Boury Bacile Baye Mouhamed Baye Serigne Saliou Rakuliru Diane. Hmm. ah oui. waaw waaw. lu tàngal li tàngal sama yaram xam dañoo jëm ci bis bu mag. mu ñor ñu lool. man sax dama gis léegi jaan mu am forme. kaar macha allah bul ma catu li ma war dama koy def moo tax man xam nee naa la am mille cent sa nekk ak samay rakk ñu bëgg ma ku ci ku ñu entraîné may topp liiru foo ne kaay xam nga dafa neex moo tax ku ma sama morom mu ma cee nga am problème. sama morom mu ma ci téye nga am problème xale yi sax ku ma ci moytul ma defal l'affaire. monument wu caaray géej gi. waaye arrête nga monument caaray dimbali ma waaye saytaane yéen ay saytaane ngeen. bul ma wax ko waaye dimbali ma du dara dóorkat la. dóorkat la du tus dóorkat la. ku mu dagal ku mu dagal tubay ngemb laa ngi lay xaar. Ah, ku mu dagal tubay ngemb laa ngi lay xaar du dara dóorkat la. waaye yow dimbali ma xanaa tey leen uuf. xanaa tey leen uuf. lu mu fi yekkul bàyyi ma ñoon amul lu mu fi yekkul isaapu amul. ba ci barke Demba Ndiaye lu mu fi yekkul rek amul xanaa tey yow booy yow man ci dëkk bi laa dëkk. je su taxawee naan saa kee su daanee rek rek mu lekk xaj. yàgg naa lekk xaj xanaa nit ñee ko xabul. waaw yàgg na koo lekk nit ñee ko xabul da ciy boole xanaa muus de at mbóot at kaña. waaw way mais li mu wax amu ci yow xanaa xamoo ni temps yi ni muy waxee mel ni ku lekk waxata. Hmm. tey ko li muy laal la. day laal lu bon. Euh, day laal lu bon dimbali ma day laal lu bon. bi waxee tey yow dimbali ma nga koy sosa man la laay dox di sos. dama ko xam sa ko ne très bien day laal bon soo déggee ni muy waxee tay ko. tay ko ah man c'est naturel. Xaadim Njaay bu laa réel booy xool ma man dama laa nuru luy laal lu bon. laa nuru luy day laal lu bon gis nga ma xamal la benn affaire. d'accord ma nga ci yàlla yóbboo ak jàmm. Hmm. man fekk ko tal ko tam ko. saa kees rek rek. Hmm. moom nee na saa kees su daay rek rek dina lekk xaj. Hmm. dina lekk lu raw xaj. yow nag looy wax. kan engagement waaw non dama lay wax. barki Serigne Saliou Mbacke. billaahi. daa wóolu day soob. xarum tabaski lay lijjanti si booy bi xarum tabaski lay lijjanti ñun xam nañ lépp xarum tabaski lay lijjanti si booy bi. moo mu jël loolu la day soob yow xamoo kii dóorkat la je ne très bien xamu leen ko kii jël nañu fi ñun. tagg nañu góor tagg ñu droit tagg na fi Balla Gaye lu ne waxal na ko fi Balla Gaye. mais Balla Gaye ko defal teraanga. voilà kon nag tey moom war sakk jëf man mii tagg na ma fi defal naa ko teraanga mu tagg ma. ñaata yoon la ma tagg voilà ñaata yoon la ma tag kon nag man lu ma wax man du ma saf waaw déglu ma dafa déglu ma man lu ma wax man du ma saf man lu ma wax du ma saf man lu ma wax du saf yow xam nga loolu lu ma wax du ma saf ndax day sakk jëf day sakk jëf tagg na fi Balla Gaye góos tagg ko fi droite lu ne wax na ko fii kon nag su demee ba taxaw soo waxee tey keroog barki démb ñaa lan la wax maa ngi gërëm seen Sène Amath seen ku baax la an la njang ah at giri bër doo door kat la door kat la door kat la toog ba mu yàgg la njang jékki-jékki woo la téléphone ne la jëlal message bi nga jël mu envoyé xaalis ba ah, door kat la yow barki dem tuddoo Mansour Ba fii waaw xanaa door kat nga yow waaw non Mansour Mansour dafa def lu baax maa ngi koy féliciter di ko ñaaral yàlla na ko yàlla àggale ci yoonam ndax Mansour dafa tëgg la man Mansour aw ma numéro téléphone am Mansour barki Cheikh Ahmadou Bamba Mansour ma xam dem dem këram comprendre nga mu tëgg làmb ba pare yónnee ma xaar jox ko jamaïcain dina ko joxal ma ko liiru ah ku def lu baax ñu wax ko dafa def lu baax dama koy wax. Khadim Ndiaye tamit dañ ko defal lu baax. d' accord d' accord waaye bu mu sakk jëf su ko amal seen defalee tranga tem bu mu tee bu mu sakk jëf bu mu sakk jëf na fàttali ko li ko Balla Gaye defal démb ak barki démb at man lu ma ko defal. waaye nekk fii di ratatatatata tuy tay ko day laal lu bon. day laal lu bon. lii sama problème xanaa xamoo keroog maa ngi dégg mu naan damaa bëgg. Euh, avant saa kees rek di bëre man ak moom ñu bëre barki Sëriñ Fallu Mbàkke su ma moom dinaa ko duma dinaa ko daan yow dimbali ma nga ama dalay gaañ jógal fi nga ama waaye waay yow yow dimbali ma nga dalay gaañ kooku dafa maa mën a gaañ man kooku dafa maa mën a gaañ am na lu xewoon ay Stade Demba Diop lan la benn loxo laan moom sama baaraama damm woon te su ma neexoon wane ko du ma dama ko nëbb bëre moom ba combat bi jeex sama baaraam bu damm kay nu may bëri nu may daan eh, moom moo ma daan. waaw kon kay nangu da ngay jaar nanguwuma dimbali ma nangu nanguwuma. nee na bi yoon du loo bëri du loo bëree yow de dalay lay cap rek. cap oh, cap oh. barke Serigne Fallou Mbacke billaahi wallaahi su ma soobee balaa ko moo rëg rëg saa kees bëri moom ñu jàpp ma jàpp ko duma ko daan ko saakees kees ñëw jàpp rëg duma ko daan ko. ñun dañoo gëm fa dëkk dañoo gëm géejawaay géejawaay ragal dëkk fi géejawaay coomo dëkk fi. yow dimbali ba ngaa ko koy yab léegi la yow joxal fii ngaa ko koy yab léegi la yow moom mooy kan ngaa ko yab yow lan la dafa la yónni ci man wala ay ndaanaan ah, dama lay laaj dafa weddiwu ma ne bëri waaye boobu léegi du léegi boobu tey du léegi bokkul boobu nga jamono yooyu ngay wax at tey du léegi du tey du léegi jamono yooyu bi mu bi bi bi bi muy bëreeg ñooñ du léegi léegi da koo mënati. mënatu ko te gis nga ma xamal la benn affaire. dee leen ko mooy son di wax mooy dee leen ko may distance. Hmm. dafa kii euh, genre feebar yooyu sëqat feebaru sëqat boobu. feebaru sëqat boobu xaaral dégg sooy wax suy wax <coughs> très bien dafa tuberculose. non dafa tuberculose de. dafa tuberculose moytu leen ko son di wax moom deen ko may distance. ndax soo la déggee suy waxee ngeen dégg ko micro bi sëqat soo su muy sëqat su leen dalee wóorul da di wàll dafa tuberculose non dafa tuberculose. yow de nga jàngoro yi nga jiñ Xaadim. non dafa am dafa tuberculose. xanaa déggoo su man est ce que mun nga jël interview muy wax ba tey sëqatul sëqat teg lay sëqat. di leen ko sóoraale loolu maa leen ko may di leen ko sóoraale di leen ko may distance yéen seen mbokk journaliste yëpp da ngeen ko waxante seen biir soo di waxam moom di leen ko sori di leen ko may distance il a distance waaw loolu maa la ko wax di leen ko di ko sóoraale waaw ndax dafa feebar feebaru sëqat boobu la waaw di leen ko sóoraale yàlla tan jàmm na dégg nga yàlla tan ak jàmm voilà xam nga géejooy ñun yàlla defal def ñu defal jàmm ñun ñun sunu biir kenn amul seeg sa borom xaar ma yàlla xañ na wax ju sew te loolu du dara ndax man awma fenn sens interne ñoom ñëpp su may rakk lan su may frère lan tey mën naa dem kër guy gi añu jee fa jóge fa dem kër Balla Gaye añu jee fa dem kër la dëggee naa na ji fa ataaya loolu jàmm ji léegi la yaa guy gi neexaw ñoom ñëpp samay rakk lan yéen seen genre dong la ay saytaan rek ngeen guy gi jotuma moom dara suma rakk la heure lool du dara am ngeen jàmm jàmm ak salaam leen musa am dimbali ma sama rakk la sama frère yéen ay saytaane ngeen du du ngóor su mi ngi noonu dëkk Caaroy. moo ko yëngu fi ñu daawul yekk bàyyi ma ñoon amul. tey jii mi ngi doon soo mu ne bàyyi ma ñoon yekk na fi lu mel ni Issa Pouye lu ne tey moo fu mu jëm moo ko Issa Pouye ñooy ànd. yow laa gis ngay jël statut di def mbëru géej waaye yëpp def leen. samay rek waaw dama kaa mës a def looy toog dama kaa mës a def yàgg naa kaa def dimbali ma. man géej waay la am chaque jour soo gisee mbëru géej waay laa ñu lay defee statut loolu c'est vrai samay rek lan sama frère am naa droit def ko. nan koy aaye. man géejewaay laa am. booy ñaam ko fi tàgg. booy ñaam man. ban doomu dégg tagg kom. nga ne moom ci oto mu woo ma bokkal ma non c'est pas vrai waxoo dëgg. booy ñaam musuma bokkal waxoo dëgg. xanaa fu ma romb kay di ma kaañoo di ma tooñ naa ma ay su leen jàppee ma ne ko doo dara doo tus doo dara ma naan su ma leen jàppee ku muy jàpp ku muy jàpp. gaynde gaynde waay yàlla ci yàlla yow talaguma ko booy bi. talaguma ko jublooguma ci ay mbiram. naa defal kii affaire ba noppi. lan moo tax Gris Bordeaux ñëw arène nationale. gunge rakkam dooleel ko pour mu am ndam. ci combat soog bi mu am. nga attaqué Gris waa attaque attaqué ma ko dafa xam ne su man tey Gris Bordeaux nu la mën a bëree combat bi des un mois dix jour Gris Bordeaux daal di ñëw ci stade moo tax may la ay supporteurs lay wut. day te xel naan di teel a. naan di a. naa duy stade. yàgg naa. duy stade. ban. diggante mu Balla Gaye. Balla Gaye waaw Balla Gaye ko yóbbaale woon nag. Balla Gaye ko yóbbaale. Ah, ah stade amitié. Balla Gaye ko yóbbaale waaye stade bi doon euh, doon muslu du mus ci Balla Gaye de. stade bi Gris Bordeaux Baye Mandione Gris Bordeaux dañoo tëj stade bi keroog. stade bi daa fees de Baye Mandione. stade bi ba mu fee. stade démb loolu yàgg na de. yàgg na de mooy bi muy bëreeg ba euh, Baye Mandione loo loolu yàgg na loolu yàgg na loolu yàgg na loolu yàgg na kooku ci Baye Mandione loolu yàgg na man daal li ma lay li wax Guédiawaye yàlla nañ fi yàlla defal jàmm sama rakk yi nga xam ni tey dañoo jógee ci ay combat yu baax nekk ci ay jóge ci ay dynamique yu baax gars yi jox leen combat Jackson combat am taxaw na léegi yàlla ko yàlla may ndam moo moo ko kii caaroy booy bi Jackson yàlla na ko yàlla may ndam. am na combat bu wér. Jackson moom it am na combat Jackson rek tubaarikàlla macha allah. xale yi dañoo war a combat Aliou dafa war am combat. xool ci bu mu jógee. ñu doon dox combat am de. mokkan waaw. booy booy Forza baax na. Forza baax na. Aliou Seye góor la xale la jànq la xamul dara kun ko jox war naa mën a bëri moom jànq la. Forza jànq na ñëw. baax na kun ko jox Alioune Seye dafa war a bëre dafa war a bëre dafa war a bëre Alioune Seye dafa war a bëre. dafa war a bëre kii na euh, Marley ngi nii tamit xool ko combat bi mu jógee combat bu rëy la jógee bëre bëre bu rëy. daan daan bu rëy dafa war a am combat moom waaw waaw la. bëgg naa kay yow ñii ay xale lan dañoo am lu ñuy bañ wala lu ñuy tiit fii géejawaay la amuñu lu ñuy ragal amuñu lu ñuy tiit fii géejawaay la. amuñu lu ñuy ragal am lu ñuy tiit fii géejawaay la. sa rakki combat ta wutuloo sa sa yoon nekku ci man suñu bëree mel ni bëri naa sa yoon nekku ci sunu bëri man ki ma waroon bëree bu tapet la moo daw ragal la. man sama rakk yi suñu bëree mel ni ne bëri naa. mais yow ñetti adversaire nga am xam waxoo dëgg man ñëpp laa mën a bëreel. waaye bëri bëri sama combat ak Adama Diouf ñoo fi doon dox. ñooñu rek Adama Diouf. wulli ah. Adim Ndiaye xale yi barki Serigne Fallou Mbacke ku ma ci fay lu ma jar ma jël ci xale yi xale yi ñooy kan dañ ma ëpp entraînement wala dañ ma ëpp fit booy nekk ci làmb ñoom ñëpp tout waaye comme que am na ay rak damay buur sama rakk yi ñu jàppal ma leen ñoom dumal ma xale yi man ma xool ak euh, euh, ñi nga xam ne ñi waaj a dem ma jàpp leen ma duma leen dogali leen ak ñi euh, ñi ñi kii ñi kii nu mu tudd feer bu feebu saqat bi ñi feebar feebar ñi fee ñi tuberculose waaye dañ may wàll tuberculose sox yàlla bu buñ ma ko wàll man tuberculose <laughs> est-ce que duñ ma ko wàll ah oui ndax dañoo feebar bu ngeen dajee ci mbedd dinaa xeex ak moom waaw ndax daf maa wax keroog jëf ju ma metti fu ma dajee moom dinaa xeex moom ndax man a taxaw man naan ma ay Gris Bordeaux di tagg Gris Bordeaux naan ma Gris ma ne ko man man kii qu'est-ce qu'il kii est moom léppam ñëw na wala li muy jël lu bon la ah moom fii lu mu fi yekkul Gris Bordeaux amul. lum fi yekkul Gris Bordeaux amul benn jour moo Gris Bordeaux ñoo dajee fële nu mu tudd euh, fële Fatick Gris Bordeaux bokkal ko rek si la amatul jàmm moom xaalis lay jaamu. non moom yow la amal problème xaalis moom yow la amal léegi man waa léegi man su amee man problème na wax ak man waaw li mu ciy boole Gris Bordeaux non kuy bëree mbëru géejawaay waaw yow am nga problème man lan la amee problème moom du la faral waaw man dama bëggul mu faral ma dama bëggul mu faral ma damaa bëggul ma for man damaa xam jikko moo tax anniversaire bu Balla Gaye ba mu ñëwee jël benn photo xam ne Balla Gaye dafa bëgg taalibe Serigne Touba la jël benn photo Serigne Touba boo xam ne xam naa néegam la ko wékkoon xaw ma ñaata indi photo photo bi poussière poussière pënd pënd pënd pënd ba bëgg dee ma ne ko doo dugg xam nga loolu a moom nag kuy bëreeg Balla Gaye wala kuy bëreeg mbëru Guédiawaye il il faut il faut mu ma kii waaye nag ma xamal la benn fii lay teeralee du indi ñaari mbër fan yi keroog xool ko ki dem ba mu indee booy bi moom moo um booy bi sax booy booy kii bi booy booy euh, kii qualifié de um. moom moo ko um. moo um. ko um. di wax rek. di waat rek di waat rek di waat di waat de man damay ñaan ci yàlla. samay rak yi am combat géejaway yàlla na leen yàlla may ndam ci dara ji sëñ Fallou Mbacké loolu laa indi ñaanal waaye man du taxaw naa damay waat. de non non waat damay ñaan ci yàlla ak ñeme naa ko billaahi wallaahi wa taalaahi barke Cheikh Ahmadou Bamba ñeme naa waat ni dina daan Gris Bordeaux waaye ma xamal la benn affaire du ma waat xam nga lan moo tax du ma waat hmm. yàlla laay ñaan yàlla laay ñaan man Balla Gaye daan Gris Bordeaux jël sa wicc te yàlla dina ma ko may mbër yàgg naa waat daan man bi ñu wóoloo suñu bopp ñun du tey man bi ma wóoloo sama bopp du tey bi ñu wóoloo suñu bopp du tey damay ñaan yàlla moom li muy wax ni dëgg ci moom day soob nii rek xaru tabaski lay lijjanti moo tax su taxawee naan saa kees euh, euh, su daa euh, su daanee réeré mu lekk xaj yooyu yëpp day lijjanti day dóor rek daa bëgg booy bi jox xaru tabaski man xam naa lépp dóor kat la te katu xel la te kadu xel la yàlla na nu yàlla suturaal te may ñu ndam yu sedd guy biir géejaway xale yi fi am combat yëpp yàlla may leen ndam. bal la set ut yàlla may ñu ndam lu sedd guy bala ngay jàpp ngir bëddoo duma ko daan ko ma ñëw feete ko géejaway waaw. di ko ñaan yàlla yàlla na ko yàlla defal xale yi am géejaway combat yëpp yàlla na yàlla may na ndax ñun géejaway lañ am géejaway lañ dëkk géejaway la ñuy tiitaroo couleur géejaway la ñuy défendre fu nu mënta dem suñu xel ci géejaway lay ne. ah sama rakk yëpp bokku ndey ak baay xale yëpp bokku ndey ak ku ci bëree daan mu neex lool laay ñaan yàlla te yàlla dina ma ko defal incha allah ndax man ñoom ñëpp samay rakk lan ñoom ñëpp samay rakk aw ma fenn sens interdi waaw yàlla na nu yàlla suturaal te mu sot ñu cat at làmmeñ maa ngi nuyu moo njaay directeur série Madeleine ca America mm-hmm. waaw at Mafal ñoom Maadou Sow Mor Ndiaye Afia waa Canal waa Canal ñoom ñëpp ak ñoom grand Sam comprendre nga ah, ak Cheikh Thiam téer bu mag ba ah, maa ngi gërëm waa Amérique bàyyi ma kenn waa 116 bàyyi ma kenn ku ma tudd sa tur maa ngi jéego du nuyu Madeleine ah, ca Madeleine ca Atlanta ak Jali jàmme si wi ñoom ñëpp ñi si diaspora bi at kii nu mu waaye euh, euh, taalibe sëñ Mansour bi Sarr sëñ Mansour ca France du nuyu waa France ñoom Papa Ndiaye sama grand frère nekk foofu ñoom ñëpp waaw di nuyu nu melaan nag sama transfert bu mag bi nu melaan sama trans doomu nday petit transfert mag yooyu sama transfert yu mag yooyu petit waaw du leen ziar bu wér a ak ñoom du sama transfert ah Lo rakku maa ngi koy nuyu kooku sama waay maa ngi leen ziar bu wér wér a wér a di ziar waa Géejawaay gépp di ziar ñëpp képp ku ne ful sant liiru gaa njaan nekk rek maa ngi lay béggee di nuyu kii sama gars yi nekk Amérique ñëpp ñëpp ñëpp Euh, kii euh, sama sama jigéen ba ma maa ngi koy ziar di nuyu Ibu sama waa ji wax dëgg yàlla ci Amérique at mama Ibu maa ngi koy nuyu bu baax sama waa ji ci Amérique at mama ah, ah, at kii euh, sama boy bi. ñoom Arfan ah doom doom day Ablaye Sarr ah ñoom ñëpp maa leen nuyu ñoom Arfan ak ak ay Diallo ñoom ñëpp maa leen ziar waa Amérique yëpp ak ñoom Mafal Baye Fall bi ku ma tudd 116 sa at booy jo booy cogo booy jogo booy coxo booy jogo maa ngi koy nuyu ak ñoom coxo Diagne ñoom ñëpp at booy jogo booy jogo maa ngi koy ziar booy jóge Brésil yëpp maa leen gërëm di sant Guédiawaye yàlla fi jàmm sax Guédiawaye yàlla na fi jàmm sax di nuyu sama transfert bi wax nu melaan bu baax at petit maa ngi leen ziar bu wér ak sama avocat maître Ndiak ba maa ngi koy ziar bu wér a wér a maître Ndiak ba sama avocat mag boobu gërëm naa ñëpp sant ñëpp Géejawaay yàlla na fi jàmm sax Sénégal yàlla na fi jàmm sax élection yi ñu dugg yàlla ñu dugg bisimilahi rahmaani rahim génn ceeg alhamdulilahi rabil alamina te yàlla musal ñu ci cat at làmmeñ te tabaski bi ku amagul xar yàlla na la yàlla may xar tabaski bi ku amaguma tabaski bi ku amagul xar yàlla na la yàlla may xar at xattum xale bu jigéen bu ci amagul borom kër yàlla na la yàlla may borom kër xale bu góor bu ci amagul soxna yàlla la yàlla may soxna tam nekk lu gën ci yow Sénégal yàlla na fi jàmm sax ñun jàmm la xam senegal jàmm la xam jàmm la ñu xam yàlla na fi jàmm sax jërë ngeen jëf. waaw tubaarikàlla fii nag ah waaw waaw Omar Diallo fi nekk lu mu laabee wul setul oto yu baax yi waaw waaw waaw Omar la fii kenn du fi jël oto ba fay naan ak cam déedéet. lu mu laabewul baaxul kookoy Omar Diallo waaw yaa ma dàq dóor téeméer yoon ñoo ngi fii notaire lan nekk ci deux voies yi notaire deux soo ñëwee foofu soo ñëwee oto bu baax Omar Diallo jaay la soo bëggee laabe ñu jaay la ñoo ñoom balla ak laay waaw tubaarkàlla masàllaa euh, di nuyu sa waaja borom marché bu bees taalibi sëñ yo baaba góor yombul maam góor tubaarkàlla tii si moom jaayul baaxul kenn du moom sama rakk la sama xar la di mu nooyu Modou Mbacke doomu ndeyam Assane Fall Golobal teg ci ca parcelle unité Modou Mbacke baax yaay Couture ak Moussa Fall gërëm naa ñëpp waaw Moussa Fall Modou Mbacke sama la ma nga ca Canada ma nga ca Canada maam góor nag doomu nday Modou Mbacke la na Canada hmm. ak Moussa Fall gërëm naa ñëpp ji jërëjëf yàlla na ni yàlla defal jàmm hmm. Guédiawaye xale bu fi am combat yàlla na la yàlla may ndam lu sedd guyu hmm. tam la set ut nag lañ jub yàlla na yàlla may ndam sedd guy guy xale bu fi am soo bëree yàlla na nga daan yàlla na jàmm sax Sénégal yàlla na jàmm sax Guédiawaye yàlla na fi jàmm yàgg ñun jàmm lañ xam jërëjëf mbokk maa ngi jaajëfal bu baax maître Assane Ka sama avocat bi l'homme qui mérite son nom. Ah, maître Ndiak ba maître Assane Ka. maître Assane Ka. maître Assane Ka. maître Assane mooy sa avocat. na ko dem na ba. Turquie dem na ba Turquie seeti. waaw ah, ko. ndeysaan teral ko. may ko xaalis bi ndeysaan ndeysaan avocat at maître Dialy Kane bu mag la at ñoom dan sama yooyu. maître Assane Ka. waaw am nga waay yow am nga ci droit yaa xam maître Assane Ka man ma tudd ko. Amina kenn du ma mooy maître Ndiack ba waaw loolu baax la ndax tey su baaxul woon doo ko tudd. Ah, ah yow man ma xam la. su baaxul woon yow rek ah. maa la xam maay booy soo ko ne très bien. Ah, nu ma la jàngalee. ki la jàngal ki xam nga ko ki boroom tuberculose bi ki tuberculose. mbokk yi ñu ngi leen di jaajëfal di leen jox dig daje ba ëllëg incha allah ci beneen xew-xewu làmb jërë ngeen. ma waaw. Xaarim euh, Gueye Xaarim Gueye. sama rakk la. sama xarit la nekk fii cité ali saw di jaay ay yëre yu baax ndeysaan tubarkal démb laa fa dem muy génne ma fii tiset bi daal may jox Xaarim waaw non dafa neex ci tàngaay bi xaadim kookooy doomu nday ngañ demba ngañ demba nga xam lu mu ko waafewul baaxul ma nga ca Paris maa ngi koy Espagne maa ngi koy ziar baax ak ñoom alam ndaa waaw ñoom ñëpp maa ngi leen ziar ndax samay xarit lan ngañ demba sama rakk la sama xarit doomu nday xaadim géy la ñu baax wax dëgg yàlla bëgg géej nag waaw yàlla yàlla jàppale euh, jili hmm. maa ngi gërëm Omar borom Paal sama xarit la sama sëñ borom Paal Omar maa ngi ko ziar bu wér di ko gërëm borom Paal hmm. Omar di gërëm sëñ Modou Faye di ko ñaanal dañ ko tuddee drapeau suba Mm. waaw Assane Ndiaye moo ko toddee drapeau sëñ Modou fay bu jàmm gën sama sëriñ la sama xarit la sëñ moo Modou fay di gërëm di nuyu sëñ Samba ca Touba maa ngi koy gërëm di ko nuyu itam sëñ Samba di nuyu Gassama Serif Tambédou mm. ah sëñ Cissé mu sëñ Babacar waaw sama xarit sama sëriñ sëñ séemu sëñ Babacar comprendre nga du nuyu sama yaaj ji aji ah, soxna na fàllu fàll tamit di ko ziar bu wér a wér a wér a wér comprendre nga du sama yaaj ji ajaa ko ñaanal màkk ga mu nekk nii mu dem ak jàmm di ko jàmm ak rakkam jam fa nekkal waaw di ko ñaanal tam mu ñaanal ñu baax a baax sama yaay ajaa gaas waaw di eh, Ibu tamit dafa dem màkk Ibu promoteur Ibu Ibrahima Ibrahima waaw Ibrahima Diop dafa dem màkk Kajoor production ñoo ngi koy ñaanal moom it ku baax ndeysaan ñoo ngi koy ñaanal moom it mu dem ak jàmm di ko jàmm di ñaanal ñëpp mm. waaw yàlla soxna si jàmm sa at maam Thierno sa king di ko ziar bu wér a wér a wér waaw sa king sa xarit bi waaw maa ngi koy waa waa déet yaa yaa ñam ay maam Thierno sa king <laughs> comme di gërëm ñëpp ñoom Gassama Serif Tambédou eh. sëñ Cissé mu sëñ Babacar ah di ñaan sëñ Samba Ndour sëñ Mor ku baax sëñ Mor sëñ Mor ku baax sëñ Mor ah ñoo ngi koy ziar mooy bu sant yàlla ñoo ngi leen di ziar bu wér di leen bëggee bu baax a baax sëñ Modou Faye dañ ko tuddee drapeau suba daal incha allah rabi arène nationale hmm. waaw incha allah rabi na Cheikh Bamba général sel dëkk Thiadiaye ñoo koy ziar mooy bu wér a wér a wér ñoo ngi leen ziar ñoom ñëpp yàlla na jàmm def si yàgg Sénégal nan fi ñaan yàlla def fi naataange Sénégal am jàmm waaw ndax ñun lu ñaan rek ñoom di ñaanal ñëpp jàmm yàlla na yàlla defal jàmm jërëjëf jërëjëf